papa day taxaw daal ne ana aji dem ji nga ne. doo ko jàpp doo ko après day yeggali parce que moom mi ngi taxaw ak. jëlal jëlal waaw jëlal waaw ayca 88 628 89 90 salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay déglu. waaw Père Mangone ñoo ngi fi Sofia. ñu ngi lay yéen a ngi am jàpp. ñu ngi lay fay bu baax ñu ngi lay fay bu baax a baax. ah yàlla yàlla jàmm yàgg. fay wootee. maa ngi wootee ba Amérique. ah man père père moo man moom ma neex quoi maa ngi dëkk ba côté côté dëkk bu ñuy wax bari jàmm Kër Madiop. ah diggante bari jàmm dingaraay ak caytu. waaw côté boobu laa dëkk Kër Madiop. <laughs> ah wax nga dëgg wax man dag ma neex rek. waaw waaw waaw waaw. wax nga dëgg yow rek yaa tax may suivre télé bi. waa ay tuuma ndiir gol ah, bari jàmm dingaraay. wa waaw. <laughs> Eh, ba maa xam dëkk boobu fa laa dëkk. waaw. ñu ngi vrai que seen thème bi nag moom baax na lool quoi tey moom ngeen génn kii nag quoi. ndeysaan baax na lool. waaw ndeysaan ndeysaan <laughs> ñu ngi dëkk. mais léegi la majeure partie jigéen ñi bu ñuy sëyi dañoo parewul cent pour cent. xam naa loolu mooy indi problème mu. leen di wax de jigéen ñooñu amatul problème mu seen góor ñi dese leen a tarbiya ah. <laughs> dégg nga li wax léegi nee na tarbiyu <laughs> de du ko def. astafurlah waaw du du jàmm nee na du jàmm. asta ah, déggoo ko ci plateau bi. déggoo ko ci plateau bi liggéey tamit ci déggoo ko ci plateau bi ok liggéey tamit ci la ci la bokk quoi pour nga mën a yore ko yore yor njaboot. <laughs> mais nee du tarbiyu. <laughs> waaw man de ñun dégg nañ ko ñun ñun ñu ngi déglu. waaw s'il vous plaît. comme bu ñu jël esclave kenn tudd ko fi. bu ñu ñuy may ñu waxtaan kenn tudd fi salaamaaleykum mais tar bi xanaa lu pus la ñaw ñaw wëñ dina dox te taar la doo tar bi da ngay ñëw doo def dara doo topp sa ndigali jëkk 88 628 89 90 nga taxaw naan nay neex nu ànd ay papa ay papa na neex nu ànd su nakare du nu ànd ginaar yi da day dox cawar i salaamaaleykum <laughs> sëñ bi noo def sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi lay déglu sa xalaat ci thème bi waaw man père laa bu waxtaanal père père nga bëgg a waxtaanal ay. waaw lu la neex waxal maa ngi nii lu la neex waxal. waaw père ñun dañ lay bëggee. dañ lay bëggee dañ lay suivre les seetaan. yal na la yàlla taxaw. waaw ñun nag lu ñu bëggoon te lañ lay ñaan rek. li nga bëggoon yow li nga bëggoon. waaw man li ma bëggoon man. yow li nga bëggoon waaw. <laughs> maanaam bu fekkente ne émission bi am na mu ngi daw par mercredi ak dimanche. dañ la ñaan euh, booy wax ngir yàlla toogal déglul gaa yi. parce ay kilifa ak ay ñëpp surtout man dama lay dégg lu bari. bul dem de na nga toog ma tontu la. merci parce que bu ñu suñoon bu émission bi ci daw nga toog te sa micro après déglu gars yi bu ñu waxee après nga tontu mais bu fekk fekkee ne dañu bëgg wax nga dagg seen wax wala nga dóor seen biir wax après foofu dégloo du am. bul daw de. non du ma daw mu ko ragaluma loolu maa ngi lay déglu bu baax. ñaataat nga am. man maa ngi ci ay trente ans vingt neuf ans. vingt waaw. ñaataat nga dëkk ak sa dégg nga. ñaata at nga dëkk ak sa way jur. waaw yàgg na maa ngi dëkk ñoom presque vingt cinq ans. Uh-huh. ci fan ci dëkk yi ban dëkk. maa ngi Kaolack. Kaolack ci fan. maa ngi Kaolack Kaolack Medina Mbaba. Medina Mbaba. waaw. mës ngaa bay. non non non. mës ngaa yelwaan. non non non. mës ngaa fanaan àll. waaw mës naa fanaan àll kaso. mës na. dugg kaso. non non mosuma dugg kaso. def armée. non non déedéet. ah yow nag daara mënuma ak yow. dama doon wax bi may wax jamono yi may wax dëgg dëgg hmm? ñëwul. Mhm. ma dama dem ba une part gis ma nee na dégagement bi moo ko neex góor gi di jóg di wax. ñëw daal di dugg si mu nga toog rek après nga. waaw mais nag non non mais une part ko bëggul loolu EDK bëggul loolu. dox <laughs> ma EDK bi. bëgguñu loolu lii góor gi def moom nañu bëgg ba tax mu ñëw. du ma ko ah, bàyyi waaw wax daal i faut nga taxaw. waaw bul xeexal gi bul xeebal ginaar jàngoroom yaa ngi koy xeebal jàngoroom fekk moo ko yóbbu àllaaxira ñii ñoo may fay. EDK ak Uniparco taxaw bi moo leen neex yow ngay seetaan nga ne naa toog ci gune ko am fanweeri at. waaw baax na incha allah ok. ah. nee na nee na non bu ñu sañoon daal vraiment nga toog parce que dañ lay dañ lay non non yow yaa ko bëgg. toog bi ak aussi non non sëñ bi yow yaa ko bëgg. mais Uniparco bëgg ko EDK bëgg. ñi ko bëgg ñi ko bëgg te mënuñoo woote dafa bari. ñi ko bëgg te mënuñoo woote boo xoolee Facebook ak ak YouTube. commentaire yu bëri fa lay doon mais xam naa doo ci bàyyi xel mais ñun ah, fa la ñuy nekk lu bëri ay internet lañ man damaa jàngut moo tax mënuma cee baax xel ñuy lu bëri di wax di wax ci suuf ci suuf ci suuf suuf lu ma wax na ma lew ñu la ko ñaan nga defal ñu ko ngir yàlla man bëgg na déet du ma la ko defal yow ndax ñi ma ci bëgg moom moo ëpp yow moomu 16 million d'habitants nanu à l'intérieur à l'extérieur je ne sais pas on est combien d'accord sëñ waa sëñ Safia Safia. waaw maa ngi lay déglu sëñ bi. waaw bañ suñu euh, aussi bu beneen thème bu dee mën na ko suivre nga te ko maanaam euh, sëy yi li tax muy gaaw a tas. ñu ñëwaat ci thème mu sëy lu tax muy gaaw a tas. def nañ ko ñaari yoon muy gaaw a tas waaw parce que dañ ci remarque trop sëy xaw ma nag nit ñi bu ñuy xool seen sëy yi duñ ci. def luy sari wax comme ça ñu jéem koo seet ba pare door mais sëy a mooy lan mooy lan mooy wax loolu quoi ñu jéem ci woo d'accord d'accord père nee na ñu laaj la ñaata soxna nga am non amaguma soxna ak père amaguma soxna ak yàlla nga am soxna su baax amin amin sama doom la nekk ak a baax na nga ay ci kontaan nañu euh, thème boobu defoon nañ ko mais daañ ci ñëwaat euh, muy lu tax euh, sëy yi di tas non ku baax la ndeysaan lu muy bëri bëri la waaw ku baax la fair play waaw dafa fair play waaw fair play ku baax la waaw et puis nit la koo xam ne ku yomba xam la soo jàngee àdduna xam ne bëgg-bëggam rek la topp mhm. waaw xam naa ña ko yar la waaw waaw waaw mais bëgg-bëggam la dal la waaw te deful kaso allo deful armée deful daara jëlal kii jëlal sa beneen doom asalaamaaleykum allo salaamaaleykum waaw sang bi yaa ngi ci biir waaw ah, kooku père père may ngoone la bilaay barke borom Touba waaw maa ngi lay ziar de. ah yow <laughs> yow ñoo bokk ñoom waay. waaw maa ngi kontaan bu baax ci yow père. wallaay gis nga de. <laughs> seen émission vraiment maa ngi koy rafetlu bu baax. sax kontaan naa ci trop. jërëjëf jërëjëf. di bëgg nag surtout ci say intervention barka Borom Touba. <laughs> waaw man moom jeune laa de mais man daal ci sa position chaque fois dama ciy gis. waaw waaw bokk du ku nekk ak sa bëgg-bëgg. laaj ko laaj ko waaw yaa ngi déglu waa ji génn léegi. waaw maa ngi koy déglu waaw. waaw Ngor si de bëgg-bëggam la topp ba nee na. li tax samay sponsor ñëw di ma jaayloo bu ma ko defati. waaw. nee na nu maanaam. nee na ah, naa toog maanaam jonge gi ak pànk te gi. ci magu murit magu murit. waaw waaw nee na naa ko ba. allo. allo. waaw yaa may dégg bu baax. maa ngi lay dégg dama ne ci magu murit. waaw. nga xam ne nee nañ magu murit benn ñaare ay waxam du neex. dëgg la waaw. ñetteel ba nee nañ du neexal kenn. waaw. ñeenteel ba it nee daawul doon am yambar. dëgg ñoom ñu taxaw moom gune gu tuuti nee na daal naa toog. mu ne nga toog daal. waaw waaw waaw gis-gisam. Ah, waaw loolu de comme xalaatam la moom. waaw. <laughs> xam naa dañ ko kay nangul rek mais en tout cas ñun daal li ñu li ma gis daal man. Hmm. mooy vraiment damay rafetlu chaque fois say intervention. ndeysaan ndeysaan ku baax. waaw ci am na seen invité nag ci. léegi man ànduma ci ànduma ci ak moom de franchement. ah invité bi de yaa ko déggal sa bopp. waaw comme ci lu ma wax ni xaw ma boo amee sa soxna des mën nga di liggéey tax dëppaat ñëw nekk dafa li ma ko fekk. waaw dara et cetera. kii la mi ngi nii kii waaw man dama jàpp ne loolu daal pour man nekkul carrément suñuy culture booy xool daal. ma ne maa ko waxee man li ma jàpp daal mooy boo amee soxna. Hmm. li war ci sa digganteeg moom daal mooy nga toppatoo ko bu baax. Mhm. lëpp loo xam moom itam la bu dee mën nga ko nga taxaw ci bu mhm. baax. waaye nag pour man daal yenn ëppal yi daal pour man <laughs> nekkul. trop ma ne mën <laughs> mën naa laa laaj mën naa laa laaj. <laughs> maa ngi lay dégg. Mhm. li ma wax yëpp. waaw. dafa dagaan wala dafa xaraam wala dañ ko warut def wala lan la. non man waxuma ni sax ci côté dagaan wala xaraam. ci suñu oh. culture laay wax ak ñun maanaam ñun lu ñu xam ci suñu réew ci Sénégal. waaw. man ci cadre boobu laay waxee. déedéet lan la ñu xam ñun dóor jigéen saaga jigéen wala yooyu. wala lan la ñu xam loolu de. dama ni. waaw boo amee soxna war nga ko toppatoo ci lépp lu mu loo xam ne moom soxna ma rek da cee war a taxaw. mais man li ma wax li ma wax li ma wax saa waay toppatoo la rek nag man ci toppatoo gi laa ne ba léegi. waaw li nga wax non d'accord naa ne toppatoo la mais pour man ëppal ci laa wax boo ci ëppalee rek en général loolu xam nga fan lay mujjee. Ah. nga dem ba sox yow finalement cër bu mu la waroon a may tax du la ko may. parce que xam nga lan moo waral loolu. mais xam nga man lan laa jàppee ëppal. waaw xam nga lan laa jàppee ëppal. waaw topp ko ci lu neexul yàlla. mais fekk yaa ngi koy def li nga xam ne neex na suñu borom. waaw loolu sa xalaat la tam dañ la. mais loolu mooy ëppal. mais xam nga ci fan la ko waxee parce que yàlla daf ne daf ñu sàkk. waaw waxal dëgg la waaw ma rek maagali saa xam nga fan laay waxee man. Mhm. li ngay wax noonu dara néew ci mais xam nga lan moo tax man ànduma ci. waaw maanaam suñu jigéen réew suñu culture la ñu xam. Mm-hmm. maanaam bokk ci tellement nga leen di di di di jox ci ce yenn ki yenn tey daal nga leen koy téye par exemple comme mm-hmm. tout le temps yaa ngi seen woon leen tout le temps ne daal ñoom rek nga bëgg àdduna. Mm-hmm. en quelque sorte man loolu boo ko defee rek moom boo xamee. mais ça est-ce que mën naa la laaj benn est-ce que mën naa la laaj benn rek. waaw est-ce que bokk na su suñu culture. góor di boot jabaram. ndax goor di bot jabaram waaw di foog moom ndax foo de feebarul dara jotu ko mu foog ah, moom loolu man day mosuma ko gis man ah man day gisaguma loolu mais fii Sénégal mais yenent bi nag da daan def loolu léegi soit nag ñun ñooy tànn la yenent bi doon def wala li ñu suñu culture diga ah, man la yenent bi daan def man laa tànn non xam nga man wax naa la dee man dew ma ci cadre religieux man waaw man ci suñu culture réew maanaam suñu aada réew xam nga nag diine am na mais dina tam ak aana defe ak aada tam aada diine fii la fekk aada man ci suñu côté culture laay waxee man mais waxee ma ci cadre diine man ah. comprendre nga fi may waxee. waaw xam am na culture yooyu nekk. Hmm. maanaam ni ngay traité jigéen yenn traitement yi loolu pour dara newu ci ñoom dinañ ko dinañ xam ne ñoom loolu dañ ko xam. ne ñun ci suñu réew saa waay yow daa mel ni déedéet. déedéet moom moom dafa mel ni dafa mel ni man je suis sénégalais comme lui. dafa mel ni ñun bokkuñu culture. man culture ba ma xam man culture ba ma xam. waaw su su tey sa jabar da cee bokk. d'accord maa ngi wax ci yow culture bi ma xam man. waaw waaye waaw. maanaam woote sànq dafa doon am écho. c'est vrai parfaitement. waaw tey moom man per doonu ma woon d'accord ak moom mais tey moom laa àndal. <laughs> parce que tey jii. moo mën a dugg ci kër mu waat mu ni dinaa fi am doom yu baax. barke te loolu da koy liggéey ci digganteem ak borom këram. wallaay. parce que soxna jaara nekk dégg na xissa biñ nettali ci biñ koy muur muy dem kër Maam Mor Anta dafa ibbi téere kaamil. Hmm. yem si aay bi yàlla di wax ni yonent bi salallaahu alayhi wa sallam moom mujj ci yoon. Hmm. te moom mu amoon yaqin ni day am yonent. waaw. kon moom daf ni comme yonent jeex na dina indi koo xamante maanaam dina dina dina. gindi ñu bari daal. waaw dina indi nitu yàlla muy Serigne Touba ak ñoom maam Asa Waalo. ñeneen hmm. ak ñeneen. ñu mën koo jël exemple suñu yaay bi ñuy ñëw suñu kër waajur yu góor yi dañ faa fekk ay rakk yu góor mu nekk ay kër yu mag. yu mag ci ay village togg cere. dem tool te yooyu yëpp dañ ko doon muñ. taxan ayca papa dem na ñu jël keneen 88 628 89 90. 88 628 28 28 28. 00 221 33 841 20 69 nañ jël téléspectateur bi. ba léegi am na ñuy rob ci teen di naan de. allo waaw dëgg la ba léegi am na ko. allo. allo salaamaaleykum. waaw <laughs> sëñ bi na nga def. maa ngi fi père. waaw waaw père na nga def. maa ngi nii kooku kan la. man Ibrahima laa la tudd États-Unis laa nekk. oh Ibrahima Khalil laay depuis les États-Unis d'Amérique. mais père sa numéro nag laa soxla de. sama waaw waaw war nga ma ko jox de père. dama la koy jox ko ko Bakary Banora jox ko ko. jox ko ko père man yow laay bëggee barke borom Touba ñoom Khady Mbaye Massar ci États-Unis ñoom ah, Sasek ñëpp. waxal ak kii ngay ñoom ñoo ngi États-Unis. maa ngi dégg kii naan xaw ma toog bi taxaw bi non mais père boo taxawul du baax de. du ma taxawul du <laughs> la du baax du baax. gune la gune la. non du baax du baax boo taxawul du baax le père. barke borom Tuubaa xam naa su ma taxawul nu toj palaat man xam naa loolu man. nii dinaa ah, leen bàyyi ak seen. ah man yow laay bëggee billahi yow laay bëggee wallahi d'accord kontaan nañu bu baax a baax dëgg la ana waa États-Unis ah, ah du ma nekk salaamaaleykum 88 628 88. bien bon su la neexee. bëgg a toog waxtaan. Ah, ah. di nuyu ay mbokk. weer nii waaw may na ma bi di serveur bi tuuti parce que. ñu doon ma bëgg a dofloo. waaw léegi allez-y allez-y demal. kay astafurlah. père daf koo bañ te diine la. yonent bi daf wax ne. Hmm. nga foog sa jabar benn guddi rek dañ lay fay yoonu ku dee ci jabar. man naa la ne damaa bañ. foofu ak jabaram gis nga nga dem marché naa la rafet. da gën moom da koy bañ waxuma yow de moom. da koy bañ dama bëgg wax ne. papa bañu ko ne am na beneen bu ngeen wax sànq xanaa xamuloo ne. jigéen dina sëy ba yóbbu ay ñaari waajuram waxuma jëkkëram de. yóbbu ay ñaari waajuram aljanna. waaw te ah. naka. Oh, kay baay bu nekkee amul ku ne ma faram fàcce. ma ne bàyyi ñu jël ma téye foofu bàyyi ma jël ñu téye foofu parce que ci serveur bi depuis tout à l'heure salaamaaleykum allo <laughs> allo oui allo. allo. dafa sori. oui sëñ bi. waaw sëñ bi noo def. allo. yaa ngi ci jàmm. allo. allo waa ñu ngi lay dégg bu baax sëñ bi da ngay wàññi sa télé dégloo ñu si sa téléphone directement. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Père Mbaye Ngoné laa soxla. wallaay maa ngi nii de. maa ngi lay ziar ba. maa ngi lay delloo ziar fooy wootee. maa ngi wootee Rufisque. Rufisque Tëngéej Rio. maa wootee Rufisque cité waaw wax nga dëgg waaw ndeysaan waaw maa ngi nii maa lay dégg bu baax a baax. maa ngi wootee Rufisque cité Sëñ Mansour. wallaay sëñ Mansour borom daara bi. Père maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax man ma di la bëggee bu wér te di bëgg ngay wéy ci li ma lay wax. Père munoo ñàkk ci plateau bi. ah <laughs> soo ko defee toj ko de. ngi lay bëggee de. barke borom Tuubaa da ngaa baax. bilaay walaay da lay bëgg bu baax a baax a baax. fu baax nga ni. dafa fii la ak euh, euh, waaw. man de bis boobu bis bu ma toogee séenuma la ci télé rek mooy fay naa sama télé dootuma seetaan seen TV. ah ngóor de nee na naa toog ngóor fanweeri at. nee naa toog déet bul toog de del jóg taxaw di wax ak nit ñi parce que li ngay wax la te mi ngi dugg ci bopp nit ñi. waaw dima jaxaseeg àddina naan sëriñ si nee nañ ko xaw ma mën a mën a sëriñ si. mu ngi may yow yow yaa ngi yee jeunes yi jeunes yi jeunes yi. moins de trente ans yi ak trente cinq ans yi quarante ans yi yaa leen di yee di leen wax li xewoon démb. ay sëriñ su mag ba fuuta ba ñànga yi di ba xayre billaahi ba Madina Njaaj ba ñu ngi may woo di wax man ay wax yu xóot vraiment vraiment vraiment yàlla na nga fi yàgg daal te wér. amiin loolu lay ñaanal maa gone gu tuuti naan ma toogal bul jógati. salaamaaleykum bul jóg danga toog gone gu ñemee yàlla. 89 90 dañu jëlaat ñett ñu dellu ci wàllu plateau bi di ma jaxase ak sëriñ si. parce que on peut pas passer tout tout le temps au téléphone. mais dañu jëlaat ñett rek mais suñu ñëwaatee def benn tour rek daal di jëlaat leen 88 628 89 90 88. allo 28 28. allo maa ngi naan. salaamaaleykum. allo. allo. asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum waaw maa ngi dégg asalaamaaleykum. waaleykum salaam sang bi. waaw yaram na ngeen def. sant bu wér. naakaar yàlla na sant yàlla ak sëñ Tuubaa. fooy wootee noonu. waa France lay wootee. est-ce que kooku de sax mbokkum taalibe. yàlla <laughs> na ci doon nangul. a man de li li may li tax may wër. am sëñ bi sol Louis Vuitton bi dama dégg mu mu mu doon wax. déglu leen ko. ki ki soog Louis Vuitton bi chemise bu weex bi. Bakary. waaw waaw dama dégg dama déggoon ñu ñuy wax naan naan. jaamu euh, jëkkër duñ ko jaamu duñ ko def waaye léegi nag ma dégg comme dégg naa ñuy wax naan jëkkër sang la. Ah. waaw ab sang moom. Ah. xam nekk sangam kooku lu mu doon ci moom. dama tekki loolu. waaye yàlla du sang borom la. ab sang nekk sang parce que dañuy wax la. waaw ah, mais dama koy tontu ma laaj. mais déglu ko waaw dañuy wax ni jëkkër sang la. waaw. waaw léegi nag ab sang. waaw kam nekk sangam ci moom kooku lu mu doon ci moom loolu laa bëgg mu tekki moom. ab sang dañ koy tarbiyu déedéet sa sëriñ ko yàlla yàlla sa borom la. ab sëriñ la ñuy sa la ñuy tarbiyu man kay tarbiyu na. keneen kan waaw. nu kan nu mu tudd. keneen ki. jaaman la sang baa ngi kenn ki lan la. ab sang ki ki ne ki bu kii nekkee sang ka def. lan lan la bëgg nga ko. s'il vous ko doon leeral rek. bàyyi leen jàmbur. eh waay bàyyi leen sama bàyyi leen sama sama. sëñ bi yaa ngi may dégg. maa ngi dégg bu baax léegi waxaatal man leen ñuy waxtaan ñun ñaar. ma ne ab sang. waaw. bu kii nekkee sang ka ko lu doon. ka ca des lu mu. ka ca des lan la war a doon. jaamam. yow laa mi yow yow mi ko léegi ma fekk si la jaamam la do léegi jaamam la. waaw jeex na kon da ngaa waxoon ni kenn du kenn kenn du jaamu kenn kenn du jaamu. ku ku ku yàlla yàlla yàlla am na pouvoir te pouvoir am na pouvoir yu muy délégué. léegi nag ma ne la moo ko fa am na sañ-sañ. déedéet ma la moom dong am waaw saa waay déglu déglu ma sëñ bi sëñ bi déglu ma moom moom moo woote koy bàyyi mu wax. demal ba koy bàyyi mu wax. waaw na wax waxal déet man kay wax naa li la xam par man kay li ma mooy ginnaaw ginnaaw ginnaaw nangu ngeen ni jëkkër sang la hmm. nangu ngeen ni jëkkër sang la jëkkër bu nekkee sang. Hmm. kam nekk ka ca des lu mu doon parce que yéen. waaw léegi bu fekkente ne du sang da ngeen du sang ma ma dégg ma xam ne du sang waaye yéen wax ne jëkkër sang la. wax dëgg yàlla waaw déglu ma déglu ma. <laughs> léegi yow nangu nga ne yàlla boroom la. yàlla moom yàlla buur. ma yàlla man man cadre cadre yàlla man da man jëkkër jëkkër ak la man moo moo boobu laa bëgg ngeen ginnaaw kii sang la lu mu doon si tu as quelque après nga wax ko mais da nga koy laaj ma tontu ko bu demee ah, ma a tontu nga ko waaw léegi kii sang la daal ki ci lu mu doon laa bëgg a xam dama la bëggoon laaj leen rek moo laaj da ngeen koy nag. kenn du ko interrompre da ngeen koy tontu. man loolu laaj man man amul amul ma ci man ginnaaw yéen a xam ba wax laaj naa leen léegi wax leen man maa ngi leen dégg. lenn rek laa bëggoon laaj naa woote waat yéen a naan fekk. ayca lay barka euh, ba merci beaucoup. Euh, ñu jël keneen. non dëkk bu réew mu naqaree dund mi ngi nii quoi. Euh, réew mu naqaree dund mais père xamal laa ko bëggoon laaj. bu ñu wàññee bruit bi vite s'il te plaît je vais revenir à toi bu ñu wàññee bruit bi rek dina dina dina dina dina dina dina dina yem. feeñ waaw mais waaw mais bu bruit bu bëree surtout yow xam nga li xew ah, mais bruit amul waaw ñun ñëpp boo waxoon booy wax ma wax Vito di wax téléspectateur bi di wax dina compliqué. sama mbokk la ñëw na di wax après nu bañ mu wax ndax dafa nekk ci yoon dafa nekk ci yoon dafa laaj. dégg nee nañu kenn ki ab ah, sang la ki ci des lan la waaw baal ma jël kii su kii nekk ab sang ki ci des lan la waaw baal ma jël kii papa baal ma. non non non may ma ko. non jëlal. salaamaaleykum allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. waa plateau gis-gis noo leen def. ñu ngi lay fay madame ñu ngi si jàmm bu baax a baax. alhamdulilah père maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax maa fii maa ngi lay fay. yéen a ngi ci jàmm bu baax. waaw ñu ngi ci jàmm bu baax merci. alhamdulilah man nag euh, Vito laa bëggoon waxal. Vito maa ngi koy dégg. wuyul Bitoo nag il a parfaitement raison si li mu wax lépp. Ah. merci beaucoup waaw. waaw Bitoo li mu wax dara nekk si lu dul neexal sëy rek. waaw waaw waaw Bitoo ñi lay woo yëpp di la attaqué c' est parce que ñoom xëy na defalu seen jabar yi. très bien góor yi si bëri fii Sénégal ay macho lañu. mais li nga wax moom. waaw tu as raison à mille pour cent eh, parce que soutien. merci beaucoup. waaw ñun jigéen ñi dinañ def association décoré la. très bien ça maa ngi koy xaar. allez merci. <laughs> waaw ndax li li nga wax dafa neex. dafa neex waaw. mais père fii dañu fee. dama ne li mu wax dafa neex. li kii wax moo bën waa ak yow li ngay wax ak seen ndey ji li muy wax dafa neex. dafa neex dafa neex. waaw dafa neex. c'est-à-dire que yow bañu ñu li ngay wax de. dafa neex bañu ñu wax dañuy wax lii nekk société bi tey. am na lu sànq lu kii wax olof Ndiaye nee na am na lu olof Ndiaye doon wax. kon daal bu ñu dugaloon oustaz Iran daal dina ma neex ñu xool ba xam jëkkër day dugal jabar àjjana ou parce que jigéen yu bëri ñu ngi ciy sonn. am nga Iran Iran maa ngi koy gis keroog <laughs> mère Iran mère Iran dugg lu mu wax ma nangu. papa Iran dañuy bàyyi ba. incha allah tey la dimanche. waaw dañu bàyyi ba mercredi nga xam ne ci la ñuy jeexal thème bi. waaw moom mu dugg si ndax xam naa ni dinañ wax lu leer luñ mën a dugg si nopp. baax na man loolu leer na ma. mais Pape Iran keroog gis naa vidéo bi mu ne jigéen ñi ma gis tey de ku leen boot sa ndigg dam nga ni <laughs> Pape Iran lan la wax nga ni. mu ne su ñuy waxee ne góor mën na boot jëkkëram. waaye jigéen ñi ma gis. mu ne waaw ku leen boot sa digg dàmm. Safia dama. 88 628 89 90 ñu jël keneen salaamaaleykum. <laughs> du ñëpp bootable daal ah. salaamaaleykum. 88 628 89 90 88 628 28. 28 00 221 33 841 20 69 jigéen yu bëri nag ni ñuy seeyee Sénégal. dañ ciy hmm. tàbbu yi bëgg ci aljana bëgg ci bëgg ci doom bu barkeel. parce que hmm. loolu lañ leen di wax la plupart du temps. c'est vérifié ou pas euh, culturellement. Hmm. dinañu am ku ñu ci leeral. ci l'islam aussi bëgg nañ am ku ne ci leeral. incha allah culturellement parlant yaa ngi ñu ciy leeral ba mu leer. Sophia mën naa la ci leer naan may ma jël kii nekk. dafa am mais dafa am lu ma la bëgg a laaj. ayca salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo allo. ayca.